وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw ba ñu sante buur yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni mooy gépp xeetu cant ñu ngi jullee ko salmal ci suñu yonent muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ak ñoñam ak àndandoom yi nga xam ni ñëway tànnif ya gannaaw bu loolu way mbokk jullit yi ñu ngi leen ziyaara di leen ndokkeel ci ma jile di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu suturay àdduna ak ju àllaaxira may ñu tamit jàmm àdduna ak ju àllaaxira ñu ngi koy ñaan subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak sadaat noonu tamit wan ñu dëgg ba ñu xam ne li mooy dëgg mu wërsëgal ñu ñu mun cee jaar wan ñu caaxaan ba ñu xam ne li caaxaan la mu wërsëgal ñu ba ba muñ koo moytu lu ko yomb la yàlla nañ ko defal ak mboolem jullit ginnaaw bu loolu wéyee mbokk jullit yi ñu ngi dalalaat ci seen émission bii nga xam ne mooy makaarimul axlaaq jukko yu tëdd yi tomb boo xam ne ñu ngi ko tàmbale woon ca ajjuma jële weesu mu aju ci mbir mu doy waar moo xam ni tasaaroo na ci àdduna si tasaaroo na ci jamono ji noonu tamit tasaaroo na ci réew mi jullit ñu bari ñu nattoo leen ko eh, ñu koy jëfandikoo di ko déglu dem ba ak siwaayam ak tamit miin gi ko noppi miin eh, dem na ba ñu jàpp ni loolu de dara nekku ca aayu lislaam aayalu ko alxuraan aayalu ko xadiis yonente bi alayhi salaatu wasalaam aayalu ko noonu tamit boroom xam-xam yi yooyu ñu ci yar duñu ci dara noonu tamit amul atte ci ci lislaam loolu nag moom mooy mbir moo xam ni dafay yàq xol eh, di yàq diine doomu adama noonu tamit di wàññi ak gëmam di ko saril alxuraan di ko saril yàlla mbir moomee waxoon nañu mooy musique nga xam ni tasaaroo na ci jamono jiñ toll waxoon nañ ci émission bële weesu ay alxuraan yi nga xam ni junñ na araamuk musique ak yàq gi nga xam ni dana ko def ci doomu adama ak wane ni moom waxi caaxaan la juy fàbbi xolu nit ci diine yàlla ji ak ci alxuraan di dox digganteem ak alxuraan noonu tamit wane nañu ni am na ay wane ci ay alxuraan yi jàll tamit wane na ni musique ci boppam euh, bokk na ci mbaal yi seytaane ci boppam di mbaalee doomu adama yi noonu tamit di leen dugal ci ay ñaawteef ak ay bon bon noonu tamit euh, musique ci boppam alxuraan wane na ni euh, ni musique ci boppam ay waxi caaxaan la noonu tamit ay wax yu waxu neen la euh, tudde na ko zuur tuddee na ko laxwu noonu tamit alxuraan tuddee na ko samut noonu tamit wane ni moom musique ci boppam baatil la tamit tuddee na ko ak baatil comme ni mu njëkkee wa jaa al qul jaa alxaq wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa yooyu yëpp dafay wane ni alquran ci boppam kon ngàññi na musique ak ña koy déglu kon tere na ko tere na ko ña koy déglu noonu tamit tàmbale woon nañ ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ni noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wane ni tasaaroo musique bokk na ci màndargay aaxiru zamaan ñii ñooy jëkk di ko def tamit am na mbugal yoo xam ni moom la ñu yàlla di xaaree bokk na ci xadis yooyu ñu mujjën a jël muy xadisu abi malik al ashari radiallahu anhu nee na dégg naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ni la yakunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira walxarira walxamra walmaazif wala yanzilanna aqwaamun ila jambi alamin yaruxu alayhim bi saarixatin lahum ya'tiihim yaani alfaqira li xaajatin fa yaquluuna irjic ilayna gadan fa yubayituhum allahu wa yadacu alcalam wa yamsaxu aaxarina qiradatan wa xanaazira ila yowm alqiyaama xadis boobu alimaam Buxaari raximahullah génn na ko ak ñeneen ci boroom xam-xam yi ñu boroom xam-xam yu bëri wéral ko abu malik al ashari radiallahu anhu mi ngi ci wax ni dégg naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni la yakunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira walxarira walxamra walmaazif dana am ci sama xeet aw nit ñoo xam ne dana ñëwi kon loolu dafay wane ni ci aaxiru zamaan ci boppam la xeet woowu di dikk ca lay fasee ni ko yonent bi waxee nii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, dana am ci sama xeet aw nit ñoo xam ni dañuy yastaxilluuna dañuy jéem a di daganal ak njaaloo walxariira ak col bon nga muy suwaa gi ñu araamal góor ña danañ ko jéem a daganalal te góoru samay xeet wal xamra danañ jéem a daganal tamit sàngara wal maazifa danañ jéem a daganal tamit instrument musique musique yi instrument yi nga xam ni mooy ànd ak musique danañ ko jéem a daganal loolu yëpp dafay wane ni yii tamit ay seex lañ yoo xam ne ñooy ànd muy njaaloo ak col gu bon ak col gu araam ak sàngara ak musique yii ci boppam ñoo bokk fu ñuy nàmpee ñoo bokk daje fu ñu mën a daje rek ñooy fu ñuy daje rek ñooy bokk ñoom ñooñe yonente wax ni dana am aw nit ñoo xam ni ci sama xeet danañu dem ba ci suufu genn montagne ñu dem fa yóbbu seeni musique ak seeni instruments yi ñuy musique yóbbaale fa seen naan yu xaraam ya muy sàngara ya yóbbaale fa ay jigéen ngir njaaloo ja ngir njaaloog ñoom yóbbaale colaale fa ay col yu bon noonu tamit ak seeni lekk nekk foofe di foo ak a caaxaan ak tamit e, e, natatallaxu ci suufu montagne boobe nee na noonu lañuy nekkee sax ay e, doxaliim yoo xam ni daanaka ay ñàkk lañu yore seen sàmm ñëw ci ñoom di sàkku ci ñoom ndimbal ñu naan leen dem leen ba ëllëg ngeen dikkaat ci ñun nee na bay leen waxee loolu yàlla ca guddi ga yàlla bette leen ak mbugalam moom borom bi subhaanahu wa taala jël montagne ba daaneel seen kaw ñërë ci yàlla daal di leen soppi def leen ay golo ak i mbaam xuux ba yowma qiyaam loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kon lii lépp dafay wane araam gi nga xam ni musique araam na ko ndax yonent dani xeet a ngi ñëw ci ci Euh, ci ci xeetam wala aw nit a ngi ñëw ci xeetam yi jéem a daganal eh, ñeent yile mooy sàngara ak tamit euh, njaaloo ak tamit suwaa ci góor ña ak musique ak instrument musique musical yi kon loolu dafay wane ni yëpp dafa xaraaman ci cosaan yonent bi boole gi mu boole musique ci boppam ak euh, yi xaraam yii muy njaaloo ak tamit suwaa ci góor ak sàngara dafay wane ni moom tamit dafa xaraam dafi wane ni tamit yu bon yi rek ñooy daje ñu bon yi ñoom ñooy daje kon xadis boobu wane na ni musique dafa xaraam yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ci beneen xadis ni boo xam ne mu ni la yashrabanna naasun min ummati alxamra yusammunaha bi gayri ismiha yucrafu ala ruusihim bilmaazifi walmuganniyaat yaxsifu allahu bihim al arda wa yajcalu minhum alqiradata walxanaazir xadis boobu albuxaari solo na ko ci taarixam ibnu maaja solo ko ci albani wéral ko ci saxiix ibnu maaja yonent bi wax ni la yashrabanna naasun min ummati alxamra dana am ci sama xeet aw nit ñoo xam ni danañu naani sàngara ba ba noppi di ko tuddee ci geneen tur ju dul turam di ko tuddee beneen tur bu dul turam di ko woowee neneen di ko tuddee neneen nee na yuzafu ala ruusihim bil maazifi wal muganniyaat nee na ñoom dañuy nekk ci suuf woykat ya ànd ak seen instrument ya nekk ca kaw tiim leen di leen wayal di leen woyal di leen xaramal kon loolu dafa mel ni waykat ya dañu nekk ci kaw pëjom ya ci boppam kaw turbine ya ci boppam di musique ñoom ñu nekk ci suuf di déglu ak a seetaan noonu tamit noonu la ñuy nekkee nee na noonu la ñuy nekkee noonu la nekkee rek yàlla bett leen fa yaxsifu llahu bihimul arda yàlla xar suuf sa suuf sa wan leen ñooñu am ñu rëcc daw ñu rëcc wa yajaalu minhum qiradata wal xanaazira ñooñu yàlla soppi leen ay golo ak tamit ay mbaam xuux beneen xadis a ngi nii boo xam ni imran bnu xusayn radiallahu anhu moo ko nettali nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qaal fi hadihi al ummati xasfun wa masxun wa qadfun wa qaala rajulun min almuslimin ya rasulallah wa mata daaka qaala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ida daharat alqaynaatu walmaazifu wa shuribat alxumuur xadis boobu al imam tirmidi rahimahullah moo ko solo ak ibnu abi dunya cheikh albani wéral na ko ci saxiix aljamia imran ibnu xusayn radiallahu anhu nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na xeet wii de muy xeetam moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñett dana ca am yett a ngi nii dana am ci xeet wi ñu ne ko yan la mu ni xasxun suuf si xar tremblement de terre am suuf si xar wan nañu bari ci ay nit wan tamit lu bari ci ay dëkkuwaay ak i immeuble nee na tamit wa masxun ñaareelu mbir moom bay am mooy masxun ñu yàlla di soppi def leen ay golo ak ak i mbaam xuux noonu tamit ñetteel ba wa qadfun ak tamit ñoo xam ni yàlla day taw asamaan ci ay xeer yoo xam ni yàlla da koy taw seen kaw muy xeeru sawara wala tamit yu muy màbb seen kaw ñoom gaañooñe loolu ba mu amee ba ba ko yonente bi waxee sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kenn ci saxaaba yi ci julli ñi ni ko yaa rasulallah yow ki yàlla yónni wa mata zaata loolu nga wax noonu muy euh, tremblement de terre bi am suuf sa di ca wannaale ñu bëri ci nit ñi ak ñu bëri ci lu bëri ci tabax yi noona tamit ak tamit euh, ñu yàlla di soppi ay mbaam xuux ak i euh, golo ak tamit ña nga xam ni ay xeer safara wala xeeri mbugal dana taw seen kaw loolu kañ lay nekk yonente bi alayhi salaatu ni ko loolu de ma ngay ami ida daharat il qaynaat ñu demee ba nga xam ni waykat yu jigéen yi fës nañu ci jamono fës nañu ci jamono ba nga xam ni daanaka tolloon nañu góor ñi wala ñu ëpp leen waykat yu jigéen ma wal bu ñu demee nag ba instrument yi ñuy musique ci boppam dem tamit ba feeñ feeñaay boo xam ne foo tourné gis ko wa shuribatil xamu al xumuur nee bu ñu demee tamit bu ba naan sàngara naan goo xam ni dafay jéggi dayoo nga xam ni boo amee cent franc sax am sa mbuusu sàngara naan ko loolu ci boppam bu ñu demee ba mu am yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñett yii dana wàcc mooy tremblement de terre suuf si di wan nit ñu bëri ak dëkkuwaay yu bëri noona tamit ak euh, ñi yàlla di soppi ay golo ak yi mbaam xuux noonu tamit ak euh, ak xeer yuy wadd di jóge ci asamaan di dal ci kaw nit ñi Euh, beneen xadis bi euh, xadisu tirmidi la raximahu raximahullah al imam tirmidi raximahullah nee na an jabirin radiyallahu anhu qaal xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma abdirahman ibn awf ila annaxil fa ida ibnuhu ibrahimu yajuudu bi nafsihi wa bi nafsihi fa wadaahu fi xijrihi fa faadat aynaahu wa qaala abdurahman atabkii wa anta tanha an ilbuka qaala inni lam anha an ilbuka wa innama nahitu an sawtayni axmaqayni faajirayni sawti sawti sawtin inda nagmati lahwin wa lacib wa madamiri shaytaan wa sawtin inda musibatin xamshin xamshi wujuhin wa shaqi juyubin wa ranna xadis boobu al imaamu tirmidi rahimahullah moo ko solo ci albani wéral na ko ci saxiixu aljaame wéral na ko tamit ci saxiixu tirmiri jaabir bin abdullah radiallahu anhu wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa génnoon moom sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ànd ak saxaaba bu tedd boobu ñuy wax abdurahman ibnu awf ñu dem ca tool ya toolu tàndama ya nee na bi ñuy dem ñu yëgal ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam ja feebaroon muy ibrahim alayhi salaatu wasalaam nga xam ni Mariam Xëttëya moo ko jur ki ko jur africaine la ndeysaan muy doomam jooju Ibrahim nga xam ni euh, moom la amee ci keneen ku euh, soxna Xadija ci Mariatul Xëttëya nee na ñu yëgal ni ko mi ngi mi ngi ngi sukuraat mi ngi sukuraat yonent bi dem sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yëkkati ko ko ci ay ñaari loxom ya ca ñaari loxom ya ca la sukuraatee ba ruwam wadd moom Ibrahim noonu tamit bi mu amee loolu bu mu bu mu ko dalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yërmaandey waajur ak cofeelu waajur ci doom dab ko ay rongoñam tàmbale di sotteeku moom sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi abdurahman saxaaba bu tedd boobu ibnu awf radiallahu anhu gisee loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mu ne ko attabkii wa anta tanha anil bukaa'i yow ki yàlla yónni ndax da ngay jooy te yaalan tere jooy qaala yonent bi ni ko inni lam anha anil bukaa man terewuma jooy de wa innama nahaytu an sawtayni ahmaqayni fajirayni wante ñaari baat laa tere ñaari baat yoo xam ni baatu ndofe la ak baatu kàccoore ñaari baatu ndofe ak ñaari baatu kàccoore la tere mel ni dañ ko ñaari baatu ndofe yooyu ak ñaari baatu kàccoore yooyu yan baat la yonent bi ne sawtun inda nazmatin inda nazmati lahwin wa laibin wa zamiri cheytaan nee na baat boo xam ni ma jib di ñu koy neexal ci jamonoy po mu yóbbu xel ak po moo xam ni euh, yóbbuwul xel euh, ak neexal goo xam ne neexalu seytaane la wala bu ànd ak euh, instrument instrument yi nga xam ne wala baatu seytaane yi ànd ak baatu seytaane kon yonent bi sallallahu alayhi wax na ni foofu baat boo xam ni dañ koo neexal ci po baat boo xam ni dañ koo neexal ca ay po nee na loolu ci boppam mooy baat bu njëkk bi nga xam ni yonent bi tere na ko ñaareelu baat bi nee na wa sawtin inda musiba ak baat boo xam ni dañ ko jibal jamonoy dee jamono bu dee amee ñu yuuxu ci kaw euh, yuuxu googu ci boppam ak xaacu googu xam ni dafay ànd xam si wujuhin nit ki di xosi xar kanamam wala euh, soqi juyubin di xotti ay yéreem ak i mbubbam ak tamit ay poosam euh, noonu waran natin ak benn salleeru noonu loolu ci boppam ñaar mooy ñaari baat yi yonent bi tere yonent bi misaalal ko ci ñaari baat yoo xam ni ci ku waye di rek lay lay jibee yonent xam le ni ni baatu musique ci ku waye di lay jóge ñaareel ba faaji rey ni ci ku kàccoore lay jóge kon yonent bi melal na ñaari baat yooyu ni baatu ndofe la ak baatu kàccoore mooy baatu musique ba ak tamit yooxu jamonoy musiba dee kon xarit boobu wane na ni musique tamit Euh, yonente bi alayhi salaatu salaam ngàññi na ko euh, noonu tamit anas bnu malikin radiallahu anhu qaala qaal an anas bnu malikin radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sawtaani malcunaani fi dunya wal axira mizmaarun cinda nicmatin wa rannatun cinda musiba xadis boobu albazar euh, solo na ko ak ñeneen cheikh albani rahimahullah wéral na ko almaqdisi yi tamit génn na ko ci almuxtaara ci albaani wéral ko rahmatullah alayhim jamian anasu malikin radiallahu anhu dafa wax ni mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sawtaani malunaani fi dunia wal axira ñaari baata ngi ni yoo xam ni yàlla rëbb na leen ci àdduna ak ci àllaaxira maanaam yàlla soril na yërmande ñaari baat yooyu ca ka muy jógee ak ca ka koy déglu ñaari baat yooyu ci boppam ñaari baat la yu yàlla rëbb yu yàlla sol yu yërmandeem ah muy euh, muy baat boo xam ni ñaari baat yooyu muy muy mooy yan nee na mismaaru inda ni'matin nee na baat boo xam ni baat bu ñuy neexal la jamonoy xéwal muy jamonoy po mooy baatu po moo xam ni dañ koy neexal jamonoy xéwal jamonoy jàmm muy baatu musique ba warannatun inda musibatin ak tamit ab salleeru ak tamit ab yooxu jamono bu dee tàbbee ci kër yooxu googu lenn ci jigéen ñi sàggan yi te ñàkk diine di yooxu te yooxu cadda la ak di di woo euh, seenu musiba loolu ci boppam mooy ñaari baat yu yàlla yonente bi xam le ni yàlla soril na leen yërmandeem ci àdduna ak ci àllaaxira kon loolu dafay wane ni baatu musique ci boppam lu yàlla rëbb la yàlla sori na ko yërmandeem kon lépp loo xam ni yonent bi xabaare na ni yàlla da ko rëbb loolu bàkkaar ci bàkkaar yi mag yi la bokk loolu bokk na ci màndargay bàkkaar yi mag yi bokk na ci màndargay bokkaar bàkkaar yi mag yi an ibni abbasin radiallahu anhuma qaal qaala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam inna allaha xarama alxamra walmaysira inna allah xarama alxamra walmaysira walkubata wa kulla muskirin xaraam wa kullu muskirin xaraam ibnu abbas radiallahu anhu wax na ci ab xadis nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla de araamal na sàngara yàlla araamal na carte ak jeu d'hasard yi yàlla araamal na tamit al kuubata danañ ko laaj luy kuuba Euh, dañu ko laaj ñenn ci mag ñi ko firi ña ko jëlee ci Ibn Abbas yàlla araamal na kuuba nee na tamit lépp lu loo xam ne day màndale araam na Sufyaan nee na qaala Sufyaan fa sa'altu Ali Ali ibn Bazimata anil kuuba Sufyaan radiyallahu rahimahullah nee na ci laa laaj nga xam ne bokk na ci ñi solo hadis bi nee na danaa laaj Ali ibn Bazimata ni ko waaw lan mooy kuuba nee na kuuba mu ne ko mooy ab tablu kuuba mooy tablu ñun moom lañuy wax tabala moom la wax tabala muy tëggukaay yi tëggukaay moo xam sabar la moo xam tama la moo xam ndënd la lu mën a doon loo xam ni dañ koy tëggee euh, moo xam tamit balafon euh, la euh, loolu yëpp ci boppam bokk na ci tëggukaay yi nga xam ni yàlla xaraamal na ko loolu tax ahmad solo ci xadis boo xam ni abdullah ibn amr ibn aas radiallahu anhuma moo ko soloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax naan inna allah xarama ala ummati alxamra walmaysira walmizra walqinniina walkuubata wa zaada li salaat alwitri salaat alwatri mu ne xadis boobu abu daawuda soloo na ko ni ko imaam ahmad solo cheikh albani wéral ko tabarani ak ñeneen ak ñeneen soloo nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxti ni inna allah xarama ala ummati yàlla de araamal na ci sama xeet alxamra sàngara wal maysira ak jeu d'hasard yi carte ak yeneen yu nu mel wal misra noona tamit yàlla araamal na ci sama xeet eh, xeetu ñolli yi nga xam ni dañu koy jëlee ci pepp yi mooy misra noona tamit yàlla araamal na ci sama xeet al xinniina mooy dëkke way ya mooy waykat ya wal kuubate ak instrument yi nga xam ni moom la ñuy wayee yàlla araamal na ko ci sama xeet wa zaada li salaatal watri yàlla sax dolli na ma julli geneen julli goo xam ni mooy julli witr mooy julli witr yàlla dolli na ko bokkut ak e, julli e, faratay juróomi e, ibn abbas radiallahu anhu wa an abihi nee na qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi samanul xamri xaraam wa mahrul baxiyi xaraam wa samanul kalbi xaraam wal kuubatu xaraam wa in ataaka saaxibul kalbi yaltamitu samanahu famla yadayhi turaaban rawaahu al imaam Ahmad wa saxahu al albaani rahmatullahi alayhim fi saxiixi aljaami Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na samanul xamri xaraam njëgu sàngara araam na njëgu sàngara araam na li muy amee ci sàngara yépp nee na loolu xaraam na wa mahrul baxiyi xaraam jigéen biy jaay boppam weexal gañ koy jox tamit araam na mooy jigéen li muy jaay li jaay boppam eh, la ma cay am lépp araam na wa samanul kalbi xaraam nee njëgu xaj njëgu xaj araam na xaj ci boppam njëg gañ koy jaay araam na wal kuubatu xaraam mu ni instruments yi tamit araam na kon seen njëg tamit araam na kon la cay juddoo tamit araam na muy la cay nit fàggoo ci instruments yi def métier musique la la ma cay jëlee lépp araam na donte ay milliards la wala ay millions la wa in ataaka saahibul kalbi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bu fekkee ni borom xaj bi dafa ñëw gannaaw ba nga jëlee xajam wala nga rey ko wala yu mel noonu ah yaltamisu famanahu ñëw di sàkku ci yow nga jox ko fam la yadayhi turaaban nee na na nga feesal ñaari ñaari yoxoom la yoxoom yoxoom yoxoom yoxoom la ñaari yoxoom yoxoom yoxoom ya na nga ko feesal muy ñaari loxoom ya na nga ko feesal ak turaaban ak suuf yoxoom ya na nga ko feesal ak suuf maanaam na nga ko bu ko jox dara na nga ko xañ bu ko jox dara na nga ko xañ kon loolu yëpp dafay wane ni yii yëpp yàlla daf ko xaraamal muy musique ak tamit instrument ya ak la koy nit ki fàggoo yàlla xaraamal na ko ci jullit abdullahi naafi jëlee nañ ci naafi qaala samia ibnu omar samia ibnu omara radiallahu anhuma mizmaaran qaala fa wadaa isbacayhi ala udunayhi wa naa an tariqi wa qaala lii ya naafic hal tasmacu cheyan qaala fa qultu laa qaala fa rafaca isbacayhi min udunayhi wa qaal kuntu maa annabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa sami'a mithla hada fa sana'a mithla hada xadis boobu al imam Abu Daawuda ak tamit ñeneen soloo nañ ko ci albani rahmatullahi alayhim daal di koy tasxiix daal di koy wéral ci saxiixul jaami' ci saxiixul jaami' wéral na ko tamit ca saxiix wéral na ko ci saxiix Abi Daawuda Naafi' Euh, dafa nettali nga xam ni moom naafe moo leen surgay Abdullah ibnu Umar radiallahu anhuma surgaam la jaamam la woon mu goreel ko mu nekk ndongoom boo xam ni taqoog moom lool mu jàngal ko daanaka ba mu fees dell xam-xam daan ànd ak moom nag fa saa ko ne bokkoon na tamit ci sëriñu imam Malik ya moom naafi bii yi nga xam ni imam Malik moom bëri na lu mu jël bëri na lu mu jël ci ñoom ay xadiis naafi euh, rahimahullah nee na dama àndaloon ak ibnu omar radiallahu anhuma ñuy dox nee ba ñuy dox rek ci mbedd mi rek nee ab baatu musique daal di jib baatu way bu ñu neexal daal di jib nee na bi mu jibee ibnu omar radiallahu anhuma daal di jël ñaari baaraam ya saañ ko ci noppam ya nee na ñuy dox di dox ba sori euh, bërëb boobee ba sori ci yoon ba nee nag ca la ma laaj ni ma yaa naafi naafi ndax yaa ngi dégg dara ba léegi waxu ne ko yaa ndax yaa ngi déglu de ndax dégg ak déglu bokkul hal tasmau shay'an tasmau mooy dégg donte jublu woo ko ca tastamiu mooy déglu boobu nag yaa ko ci jublu ci nga cay amee bàkkaar kon boo rombee dégg te jublu ko ca loolu amoo ci bàkkaar boo ko dégloo nag boobaa mooy jublu ga te nga cay am bàkkaar loo tax mu laaj ko nag hal tasmau shay'an ndax yaa ngi dégg dara ba léegi qaala fa qultu lahu laa man ko déedéet déggatuma dara de nee na fa rafa isbaayhi min uznayhi te la teggi ca ñaari baaraam ya ca ñaari noppam ya nee na muni ma kuntu ma annabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ma benn bés dama àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu dégg lu mel nii ma dégg muy baat bu ñu neexal mooy lu mel ni musique nee na yonent bi daal di jël sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaari baaraam ya saañ ca ñaari noppam ya dem ba sori laaj ma ni ma la laajee ndax dégg naa dara ma ne ko déedéet ca la doog a dindi ñaari baaraam ya kon loolu dafay wane ni euh, yooyu yëpp euh, lu ñu euh, lu ñu baat yooyu yëpp nga xam ni ci jamono yonent bi daanaka du ànd ak instruments yi mais baat yu ñu neexal la ba mu jégg dayoo bay fitnaal doomu adama waxantuma laa nag mu ànd ak ay tëgg nga xam ni mismar bu ñu ko waxoon ñaaree day ànd ak tëgg yoo xam ni du tëgg keseng keseng tëng-tëng du fu lay doon mais léegi ci boppam dem na ba ëpp day day loo tax euh, boroom xam-xam yi euh, kenn ci jamono ji ñuy wéral duñu sikki sàkk ni musique ci boppam lislaam da ko xaraamal loolu tax texte yi yëpp muy alxuraan ak xadiis yi ak waxu saxaaba yi euh, noonu tamit ak boroom xam-xam yi dëppoo nañ ni musique ci boppam dafa xaraam déglu ko dafa xaraam déglu def ko métier tamit xaraam na la cay nit ki fàggoo tamit ci alal loolu xaraam na nit ki tamit war koo jënd maanaam waru jënd musique maanaam cassette yi ak CD yi ak tamit euh, lu mel ni MP yi yooyu yëpp di dafay xaraam ci jullit bi ci boppam muy jël alalam de ko cay def loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ni naha abu abu umamata radiallahu anhu wax ni naha rasulullahi sallallahu alayhi wa ala an bay'i almuganniyaat wa an shiraa'ihinna wa an kasbihinna wa an akli asnaanihinna rawahu ibnu maaja uh, wa xasanahu cheikh albani fi saxiix ibnu maaja abu umaamata radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere na jaay waykat yu jigéen yi ndax jamono njëkk ya jaam yu jigéen yi rek ñoo laan way jaam ya ñoo laan way góor daawul way léegi la ñëpp di way wante bu njëkk métier ku gudul woon gor la ku suufee la woon ci société bi moo laan way mais léegi nag daa dem nañu ba jàpp ni waykat yi ñooy staaru réew mi ñooy staaru euh, jamono ji ba gone yu bëri jàpp leen def leen ay biddiw def leen ay nit ñu màgg nit ñu kawe nit ñoo xam ni ay référence lañu wala ay symbole lañu euh, ba ci boppam def leen ay monument fekk ni ca jamono yu njëkk ya ñoo ñooñu ñooy ñu gën a suufee ci nit ñi ñooy ñi gën a suufee ci société bi ñooy ñi gën a dayodi ci société bi société bi bal ñooñu ci boppam ab comme ay ay ay jëfandikuwaay lañu woon dañu meloon ni comme ay euh, instrument yoo xam ni wala ay euh, objet yoo xam ni dañ leen jënd ak jaay mooy waykat ya te te jaam ya la laan doon loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere ni jaay waykat bu jigéen bu moo xam ni ab jaam la di way mécce oo way bu ko kenn jaay ndax boo ko jaayee boobaa ndax dafa xaraam kon boo ko jaayee dafa mel ni da jaay benn instrument wala da nga jaay ab ab ab waykat boobaa te ndax dafa way dafa xaraam da nga jaay lu xaram te jullit amul sañ-sañ jaay lu xaraam ñu mel ni jaay sàngara dañ ko xaraamal loo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam tere jaay euh, jaamkat jaam yooyu nga xam ne yu jigéen yooyu nga xam ne dayaan way wa an shiraa'ihinna tere tamit jënd ko muy jaam yi jigéen yaraan way kon loolu dafay la mu cay déggee mooy ni daganul ci boppam ab jullit jël alalam di ko dugal ci waykat boo xam ni moo xam da koy luye wala da koy day dugal alalam ngir dem déglu ko loolu ci boppam dafa xaraam wa an kasbihinna yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xaraamal seen alal ya ñuy fàggoo ci euh, musique boobu loolu yonent bi sallallahu alayhi tere eh, noonu tamit wane na ni dafa xaraam dafa tere na ko moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa akli asmaanihinna nee na sax jaay lekk seen njëg moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam tere na ko lekk seen njëg ñoom jaam yu jigéen yooyu daan way lekk seen njëg yonente bi tere na ko araamal na ko kon loolu dafay wane ni euh, li nit ki di euh, musique ju ju métier kenn waru koo def du métier bu dagan kenn waru koo def métier boo ci ci lislaam donte nag am nañu koy def ay métier loolu nag lu ni euh, suñuy déggin la rek yoo xam ne ñoo ko déggee ci texte alquran yi wala ci texte xadis yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu dafa mus a nekk lu xeet wi dëppoo tàmbale ko ci saxaaba yi ak tamit ci borom xam-xam yi ñëw seen ginnaaw loolu moo leen seen wax ci wàllu musique loo tax ibnu mas'ud radiallahu anhu ma ngay wax ni alginaau yumbitu nifaqa fi lqalbi mu ni musique ci boppam dafay saxal ak naafeq ci xol ci beneen riwaaya mu ni dafay sox saxal ak naafiq ci xol ni ndox di saxale gàncax ni ndox di saxalee gàncax di ko suuxat ba mu màgg naat noonu la musique ci boppam di suuxati euh, ak ak euh, di ko di ko di ko di ko di ko di ko màggal ci biir xoluk doomu aadama abdullah ibnu abbas doon na wax ni addufu xaraamun wal maazifu xaraamun wal kuubatu xaraamun wal mizmaaru xaraamun doon na wax ni tëggukaay yépp yi ñuy tëggee ci way yi ak ci musique yi dafa xaraam moom ibnu abbas doon na ko wax noonu tamit Daxaak doon na wax ni ci taabiin yi la bokkoon euh, muy euh, ndonga saxaaba yi mu ni euh, alginaau mafsadatun lil qalbi masxatatun li rabbi musique ci boppam dafay yàq xol di merloo borom bi Omar ibnu Abdul Aziz buur bu màgg boobee maanu woon moom Omar ibnu Abdul Aziz dafa bindoon ab téere ya jox ko kanaan yar doomam ni ko mun li mu wax mu wax ko ni ko euh, li yakun awala maa yactaqiduuna min adabika bugda al malaahi allati baduha min alcheytaan baduha min alcheytaan li yakun awala maa yactaqiduuna min adabika bugdu almalaahi allati baduha min alcheytaan wa aqibatuha suxtu arrahman فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشبة loolu Ibn Abi Dunya ak ñeneen génn nañ ko Abdu ab Omar ibn Abdul Aziz bind leetar ca kalan yar doomam ja ni ko di ko wax naka la war a yaree doomam ya wala di ko wax li mu bëgg tamit mu yaraale ko mu yaraale ca doomam ya nii nag li yakun awwala ma yaataqiduuna min adabika li ñuy njëkk a euh, fas ci sa yar na doon bëgdul malaahi mooy bañ pooya ak instrument ya ñuy fooyee bañ poo ak instrument ya ñuy fooyee mu wàllu musique allati baduha min asheytaan yi nga xam ni euh, commencement am ci seytaane lay jóge maanaam tàmbaleem seytaane la ci seytaane lay jóge mujj ga nag so soxtu rahmaan moom mooy euh, merug yàlla mooy merug yàlla may borom yërmande nee na fa innahu balagani an istiqaam min ahli ilmi ndax nee na euh, jot naa ci ñu wóor ñi ci borom xam-xam yi ñu wax ni xudural maasif yi teewee fi ñuy musique ak déglu musique ya ak tamit foo nekk di ko répété loolu dafay dëm jëmmat ak naafeq ci xol ba ci xolub doomu aadama ni nga xam ne noonu la ndox di euh, jëmmatee ak gàncax Omar ibn Abdul Aziz noonu tamit bindoon na jëme ci kenn ku ñuy wax Omar ibnul Walid xañ na kenn ci gouvernement mi la mu ni ko euh, bind ko benn leeta ni ko wa izhaaruka lil maazifi wal mizmaar bidaatun fi l islaam wa laqad hamamtu an abaasa ilayka man yajuzu jummataka jummata sawi mu ne ko feeñal gi ngay feeñal instruments yi di musique ak tamit ni euh, nga koy ni euh, nga koy ni nga koy ni nga koy ni euh, nga koy encouragé loolu bidaa la ci lislaam nag nar naa naroon naa yobal ci yow koo xam ni dafay ñëw wat la nel wat na nel loolu yëpp ngir pini ko moom loolu tax boroom xam-xam yëpp dëppoo ci ni loolu musique ci boppam dafa xaraam rawatina yu ànd ak instruments yi boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci amul wute loolu tax ñi nga xam ni ñoo euh, wane ni borom xam-xam yi am nañ ci ijma muy dëppoo moo xam ne ni xaraam na ku mel ni ajur yi toxal na ko ku mel ni qaadi abu tayib at-tabari toxal na ko ku mel ni abul abbas al-qurtubi toxal na ko ku mel ni zakaria ibnu yaxya as-saaji toxal na ko ku mel ni abu amr ibnu salah toxal na ko loolu tax ibnu salah wax ni man nasaba euh, ila eh, man nasaba ibahatahu ila ahadin min ahli al-ilmi yajuuz yajuuzu al iqtidaau bihi fi diin faqad axtaa nee na man nasaba ibaaxatahu képp koo xam ni askanal na daganal musique ila ahadin min ahli al ilmi ci kenn ci borom xam-xam yi yoo xam ni yajuuzu al iqtidaau bihi fi diini dagan na ñu roy ko ci diine nee na faqad axtaa kooku juum na kon borom xam-xam yi ñu roy ci diine ñëpp ñoom dëppoo nañ ni musique ci boppam dafa xaraam nee na loolu tax ñi ko dag ñi ko xaraamal même aimatul arbaa muy borom ñeenti biir ngir yëpp ñoom dëppoo nañ ni xaraam na ku mel ne Abu Xanifa imaam Malik imaam Shafii imaam Ahmad loo tax cheikhul islam ibn Taymiya rahimahullah wax ni fa madhabu al aimmati fa madhabu al aimmati al arbaati anna alaati lahwi kullaha xaraam nee na ngiiru mboolem ñeenti borom ngir yi mboolem ñeenti borom ngir yi ñoom ñëpp seen madhab mooy ni instrument yi xam ni dafay ànd ak musique nee na yëpp xaraam na ñoom d'accord nañ ci loolu yëpp xaraam na kon ñoom araamal nañu musique ndax buñ koy wax mooy yi ànd instrument yi loolu tax boo demee ci mazhab Abu Hanifa ñoom dañ koo taral ba boole ko ci bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi bal ibnu Hanifa Abu Hanifa euh, dafay wax ni ci boppam képp ko xam ni jël na bant dóor ko ci bant sax nee loolu xaraam na ba wax ni bàkkaar la boo xam ne dafay waral nit ki tuub ca saase te bu ko bu tuubul moom dootul doy ab seede loolu ibn abu xanifa doon na ko wax ngir taral rek ah, wane ni ni mu xaraamee ama imam shafii ah, rahmatullahi alayhi moom tamit doon na wax ni xallaftu bi bagdada cheyan axdaat axdathathu zanadiqatu yusammuunahu taxbiru yasudduuna bihi nnaasa an alquran abu xanifa al euh, euh, imam shafii nga xam ni ndongo imam malik la woon doon na wax ni man de ba may jóge Bagdaad bàyyi naa fa mbir moo xam ni ña ko sos mooy naafiq ya ñu ngi doon ko tuddee taxbiir nee na taxbiir boobu de nit ña li tax ñu sos ko ñoom naafiq yooyu mooy ngir dox diggante nit ñi ak alxuraan ak diglu alxuraan ay way la woon yoo xam ni dana ànd ak ay tëgg ay way yoo xam ni dana ànd ak ay tëgg ay bant ak i galañ nee na loolu ci boppam moom laa bàyyi Bagdad te ña ko sos ay naafiq lañu dara taxuñu sos ko lu dul dox diggante ni ñi ak tamit euh, alxuraan doon na wax ni képp kuy musique rek dayuus nga te yonent bi dafa waxam ni ad dayuusu laa yadxulul janna aw laa yadxulul jannata dayuus amul fiiraa amul fiiraange ci derum njabootam kooke ci boppam ab dayuus la yonent bi nee na kooku du dugg àjjana ëllëg loo tax euh, Shafii nee na musique ci boppam képp ku ko ku koy takkoo yow aw ab dayuus nga loo tax nee na kooki kenn warul nangu ak seedeem dootul dootul dayati ab seede loo tax euh, imaam euh, Nawawi wax ni huwa min shiaari shaaribil xamri bokk na ci mandarga yi ak siñu li nga xam ni ñoom ñooy naankatu sàngara ya ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam da nga gis ni fi muy wax musique yëpp da koy àndale ak sàngara ak col gu bam ak tamit ak njaaloo amma boo demee ci mazhabu imam malik rahimahullah bañ ko laajee musique dafa wax ni innama yafaluhu indana al fustaq ñi koy def ci mooy kàccoor yi kàccoor lañ ko xamee looloo tax mu doon ko tere wax ni sax ab jaam boo xam ni dañ ko jaay fekk muy euh, way nañ ko delloo ndax loolu sikk la imam malik rahmatullahi alayhi boo demee tamit ci mazhab imam euh, ahmad tamit noonu bañ ko laaje euh, way doomam ja moo ko laaj muy abdallah ak musique mu ni alxinaa yumbitu nifaaqa fi qalbi mu ni ak way way ci boppam dafay jëmmat naafeq ci xol wax ni nag innama yafalu indana fusaaq ñi ñu ko miinee ci ñun mooy kàccoor yi ñu ko miinee ci ñun euh, mooy kàccoor yi doon na wax ni boo gisee aw nit ñu nekk ca nga sóobu ab yoon na nga tegg yoon boobu jaar ca beneen yoon loolu tax ibnu abdul nga xam ni ci ponkalu ngiiru imam maliki la bokk doon na wax ci téeréem bi ñuy wax alkaafi ba muy lim yu xaraam yi doon na wax ni wa min al makasib al mujmaci ala taxrimiha al riba wa muhuri al bagaaya wa suxtu wa risha wa axdu al ujrati ala al niyaxati wa al gina wa ala al kahanati wa iddia al gaybi wa axbaari samaai wa ala al zamri wa al lacibi al baatili kullihi doon na wax ni bokk na ci euh, anam yi ñuy wutee alal te mu xaraam ñi nga xam ni boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci muy nee na riba nee na tamit ak neexalu jigéen ñay jaay seen bopp ak tamit euh, yenn corruption yi alalu corruption noonu tamit ak euh, alal joo xam ni ñi ngi ko neexalee kuy ñëw di yooxul ku euh, kenn ci mbokkam génn àdduna comme ni muy amee nga xam ne dañuy luye ab yooxukat wala ab jooykat comme ni nga ko amee ci yenn réew yi naar yi ba léegi Euh, am na ca ku dee euh, am dëj ci boppam ngir wane ni yow euh, ki génn àdduna kilifa la koo fonk la dangay dafa am ñoo xam ni ñoom ñoom ñooy jooykatu néew yi nga xam ni day leen xamee loolu bu jotee rek day leen woo ñëw leen fay leen waxaale ñu fay leen bu ko defee nag bu bés bu jotee bés dëj ba ñu ñëw ca kër ga tàmbale di yooxu di jooy waaja di yooxu namit di wax ay jaloore mak yooyu ngir wane ni rek ñàkk nañu ngir wane ne kooku tamit ku rëy la loolu amoon na bu njëkk ba léegi am na loolu euh, payoor googu ñu leen fay araam na mu teg ca ni wal ginaa ak tamit jóge ci musique nee na xaraam na wal kahaana nee na ak njibar ak gisaane ak jéem a xam kumpa alal ga cay jóge nee na loolu xaraam na ak pooy yi tamit alal ya cay jóge yooyu yëpp xaraam la c'est kii kilifa la ci euh, al madhab maliki kon loolu yëpp dafay wane ni Sénégal madhab bi wax ni moom lañuy Euh, euh, jaamoo yàlla ci wàllu ibadat fariya yi ci wàllu jullee koor ak yeneen ya mazhab boobu araamal na musique loolu yëpp borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci i mazhab imam malik ak yeneen mazhab yëpp loolu tax nga gis ni euh, musique ci boppam l'islam ak quran ak xadiis yi ñëw tuddee ko ay baat yoo xam ni dafay wane ni lii nit ku yiw ak nit ku baax nit ku sell ci boppam waru koo déglu waru koo jëfandikoo tuddee na ko po tuddee na ko caaxaan tuddee na ko ak neen tuddee na ko tamit al muka wa tasdi eh, tasdiya muy eh, walis eh, tamit tuddee na ko tamit ak i kàccu nga xam ni bu njëkk moo naan julli ceddo ya noonu tamit tuddee na ko tuddee na ko tamit ci waxu mag ña tuddee na ko ruqyatu cheytaan mooy lay mocc ak tamit di jag ak njaaloo ba tàbbi ca tuddee na ko alxuraanu cheytaane te mooy musique mooy saxal naa ci xol yi noonu tamit moom mooy baatu ku dese ak ku manqué ak koo xam ni dafa yembari mooy baatu kàccoor noonu tamit tuddee nañ ko baatu seytaane noonu tamit euh, tuddee nañ ko ak ak sumud yooyu yëpp bokk na ci ay turam li ci boppam li muy jural ab jullit comme ni ko mag ñooñu waxee dafay euh, saxal naafeq ci xol dafay taxa dëgër bopp dafay taxa di wax lu dul dëgg dafay taxa kàccoore ak xol bu yàqu dafay indil nit ak nooy ak ngóor jigéen noonu tamit dafay tax nit ki bëgg jigéen bu fekkee góor la dafay tax tamit góor ki bëgg euh, euh, jigéen ki bëgg góor bu fekkee jigéen la loolu ci boppam musique dana ko indi rawatina ci musique yi nga xam ni moo am ci jamono nga xam ni ci mbëggeel ak cofeel ak ak nobanteeg yu mel noonu rek daanaka euh, ci lay wax ak ñi koy waxati ñi koy way nga xam ni jigéen la ñuy doogoon doon seen awra ya seen cër ya yépp ci biti ak tamit euh, pecc yu bon yi nga xam ni daanaka sax léegi euh, pecc euh, bàyyi ma lay doon lañ koy tuddee ay turu bàyyi ma ay turu ay xaj ay turu ginax xama muus xama kaña mbaam xuuf ak yu tur yu bon yooyu daal nga xam ni bàyyi ma yu bon yooyu léegi seen yëngatu yi ci wàllu musique loolu lañ koy tuddee loolu yëpp dafay wane ni loolu lu xaje la lu xaje la kon ku koy def daanaka da nga ñoo ñu bàyyi ma yooyu kon du mbiru nit loo tax mbiru bàyyi ma la Euh, dañ noonu tamit day tax nit ki xolam diis ba du mën a déglu alxuraan noonu tamit du mën a xerewlu ci alxuraan du mën a déglu alxuraan du mën a neexaa yëg neexaayu alxuraan du mën a bànneeku ci alxuraan du gis mukk kuy bànneeku ci musique di bànneeku ci alxuraan noonu tamit dafay génne kersa dafay dindi kersa euh, di ko wàññi day tax nit ki ci boppam euh, fu mu nekk rek xelam ci boppam di jëm ci bànneex buy dox ci góor ak jigéen noonu tamit dafay dindi ak mbañ rus ci boppam daf koy dindi ci nit ki ba dootul bañati dara dootul rusati dara euh, noonu tamit euh, jullit bi kon jamono joo xam ni euh, dégg na lii war nay fexe mu delluwaat ci diineem xam ni diineem moom rek mooy mun a muccal nit ki fii ci àdduna ak fee ci àllaaxira mooy njëkk te mooy mujj te moom lañuy ñuy laaj ëllëg nit ki ci biir bàmmeelam kon nit ki war nay góorgóorlu tuub dellu ci yàlla subhaanahu wa taala ndax jee dafay bette am na ñu bëri ñoo xam ni dañ nekkoon ci déglu musique ba sukuraat dikkee ñu wax leen wax leen laa ilaha illallah mënuñu ko wax lañ lañ leen tàmbalee di wax mooy tan tan tan tan tan tan teng ci la ñuy wax ba dee mooy seen laa ilaha kon kuy dund sa xol nga feesal ci musique ba mu fees dell ba boo ko dégloo di jooy boo demee ba sukkuraat dikk nag loolu nga feesaloon sa xol mooy génnaat kon nit ki war nay góorgóorlu tuub dellu ci yàlla subhaanahu wa taala delluwaat ci alxuraan ak déglu ko lu bëri moytu bërëb yooyu nga xam ni ak waxu yooyu nga xam ni waxu cheytaani la ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala may ñu dégg topp ñi ngi ñaan yàlla ba ñu xam ne lii mooy dëgg wërsëgal ñu mun cee jaar wan ñu caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan wërsëgal ñu koo moytu hada wa sallallahu wa sallama ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ki nekkoon technique bi soxna joor ñu koy gërëm ak sant gi nekkoon ci waxkaay bi seen bokk si Yaxya Kunta wa sallallahu wa wa ala wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.